Bienvenue sur Salam Vision. Bismillah waaye géej gi doo leen ci wax. ne ñeent ci ay nappkat day waaw daal ñuy réeraat nag ci biir géej gi lé mardi tali maa ko wax musiba amatina de kenn daal lañ forca diwaanu nguur gële waaye gis nga Mamadou Ndiaye Boubacar Diouf Daouda Seck Baye Mbaye Ndiaye waaw danoo réer de réew mi quotidien ne accident nga xam ne maanaam ñoom ñooy am ci biir géej waaw ci ñetti weer lu tolloog ñeen fukk ak ñett ci ay doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga ca jamono joojee nga xam ne ndaw yaa ngay dee ca biir géej day say suñu kilifa yi lee politique rek politique rek enquête yéene kaay ne xoolal ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo séq nag élection locale yooye waaw ña ngay rayante de maar di taali waaw parce waxtaan di dialogue bi nga xam ne moo amoon ca sous commission dialogue boobee waxtaan nu ñu tax la de day dugg ci nopp bii génn xam ne nag mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar lu tolloo fukki weer ak benn kon la war a duré eh Samba mu Ndiaye waaw nee ak élection locale yi ba 2022 day mbir moo xam ne nit mënu koo nangu te loolee mënta ne de ca fay ah nee ak élection yooyu d'accord tey te duñ d'accord ëllëg la wax très bien ça les seco yéene kaa ne élection locale yi de waaw waxtaan ba juboo amul désaccord total kay moom am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ca wàllum date ba parce que nguur gi ci seen xeex bi de mar di taali parce que conseil des ministres de ma Macky Sall ci boppam daal dinay signé ne élection locale yooyee dàqati nañ ko ajati nañ ko de la ilaha illallah laast organisation élection yooyee Macky Sall ak ñoo ma àndal tey weeru février 2022 waaw ba ñu toog xaarle le quotidien yéene ne ajati nañ ko de évidence yéene kaay ne waaye opposition bi de nee na lu njiig nguur gi ci boppam mooy njaak ca jamono jooje sur quotidien nee na ne kon député kalaame woon ko ngir ñu topp bi nga xam ni kon ñi ngi koy topp nag njiital Pastef mi lé l'observateur ne en tout cas coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko day jur na musiba manifestation ay musiba yu rëy parce que lu ëpp ñaari junni ci ñoo xam ni kon nañu doon liggéey ca total gëlé sëyin xëy ma aj nañu ko de gaa ñaa nga toog seen kër de mardi taali liggéeykat contractuel yi nga xam ne ñoo nekkoon ca OPSA dàq nañ leen la ilaha illallah sur saane la nooy a nooy na nooy na nooy bi day moo da fast track lañ ko indi dee taf taf parce que Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène waaw mujj nañ leen ne ci kaso bi day alhamdulillahi rabbil alamin réew mi quotidien ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Sonko Pastef ca diwaanu gi ñoo nekkee waaw ñoom tamit génnee nañ leen démb ca kaso ba wax bugaan ngay dani day ci tribune yéene kaay waaw nee na bi nga xam ne dama koy jàppale kon Sonko mi la pour défendre démocratie bi la gis nga boo leen seetloo coowal suite ba tegoo kay lañ na ca biir man daal en tout cas musuma cee wax man bugaan ngay dani le fond non te ba ma ko seetee de njiital gëm sa nangu attaqué na discours yi nga xam ne kon nañu ko yëkkati nag ci wàllum xeex diw joolaa la séeréer la tukulóor la olof la ñeng ñeng ñeng patiti patata waaw Bougane Gueye Dany nee na te loolee nag mi ngi jugee ci a ak jegeñaale président Macky Sall Bougane Gueye Dany ne président Macky ci boppam moo war a wax ak jegeñaale mi lee ci seen discours yooyu nga xam ne lu dangereux la ngir jàmmi réew mi njiital gëm sa bopp day waaw nee ay chef de l'opposition a dara éliminé na Sonko Madior Fall ma ngay tailleur machine den quatre heures yéene kaa ne waaye gis nga nag buur buur la doomu buur buur la yooyee waaw dañu koo soxlaatul nag laa la wax al nitin na dëgg la gis nga politique bi ci boppam sax léegi amatul sens te Sénégal politique bi dem ay élection sàcc ko ay élection jël ay doomu aadama tëj leen ci kaso bi ndool gi fi ne loolee ci boppam kon moo war a changé laa la wax looloy dëgg de yéeni kaa gi waaye na gis nga politiciens yi lée nekk ci nguur gi opposition bi ah nañ xam ne danañu jàkkaarloo ak génération ay jeunes yoo xam ne la woon woon ni na de la woon woon ni na de ku la neexul nga éliminer doy na waar sur saane téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti ndax Karim dañ koo daan maître Moussa Sarr ne ah kay nguur gi mën naa nangu oto yooyee bu dee ci turu Karim la ñu ne waaw maître Moussa Sarr ne waaye nag bu dee oto yooyee dañ koo def ci turu parti démocratique sénégalais day waaw nguur gi mënu koo nangu de parce que PDS ab bu ñu nangu la ma yoro fay PDS nee na man de xaw ma oto yooyee kan moo ko moom mën nañoo nekk ci turu PDS wala ci turu Abdoulaye Wade wala ci turu Karim Wade Amadou a réew mi xam nga moralement sax loolee mënta ne lii mën a nekk kay mooy ñu xoolaat seen at bi wala présidence la république daal di dellu ginnaaw complètement mënuñoo jóg rek ne dañuy voté ab loi Karim Wade kese wala Khalifa Sall kese Amadou Gueye yemu ca ndaxte nee na xam nga Macky Sall dafa doon ngand ngandaloo ak a yëkkati ay mbagg ak yooyee final nit leen terroriser waaw waaye boo xoolee ba ci biir day Macky Sall fi mu nekk nii dafa mel ni moo ragal rama Macky seen taxawaay ci kanamu askan wi lée rama Macky yamu ca dee parce que na ñi nga xam ne président Macky Sall kon da leen a wóolu ba pare dañuy daw deuxième waaw coowal Ousmane Sonko li lée dañoo seetlu ne président Macky Sall kon daawee doon lool xale ci boppam sax booy xool ñoom ñoo ko doon défendre rama Macky ne kon nag xale ci boppam war nañ leen a xel critique yéene kaay ne de parti réew mi a waaw waaye mbir maa ngay continuer ba léegi ni la waxuma la waaye est que seen feebar bi ab docteur du mën na koo faj ah te sax doon nañ yaakaar ne Idrissa Seck ak lañ ko fal ca conseil économique ah dana tax nag ba ñi ko toog ak yooyee waaye ginnaaw ba dara gataga mi nga xam ni ko tekki na ndooma dem day Déthié Fall a ngi ni lée di waaj a parti politique am laa la wax Déthié tam day dem day ñu ne déet ni waaye Abdou Aziz Mbodj responsable juridique ci élection yi ci parti réew moom it nee na tekki responsable yu bëree bëri nag tribune yéene kaay ne waaye yow mburoog soow moom mbaaru daa mujj safkaani moo ma jaaxal Eli Charles Moreau ci direct news nee na gi la nekkul dëkk bu ñuy jaay te nekkul tam dëkk bu ñuy taal yéene kaay gi ne nañu caxa-caxatee nag brèche su ndarge jëlee chinois yi dee ngay takk seeni bagage en tout daal waaw génnee na la fay mitti de ca bël ba Alioune Ndoye day moo lancé woon drapeau ya 12 novembre waaw 7 milliards la jar allahu akbar juróomi weer lañ ca teg chinois yi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 jërë ngeen jëf élection locale yi ci réew mi wuute wut ak mbayum galaas ciw naa ci heure bu ñu jiwee bay séentu mu sax bu ñu ñëwee fekk mu seey Le Quotidien nañu muy élection locale yi di leen ba kañ yéenekaay bi nañu ci démb daal ci la ñu jël dogalub reporté leen ci ndaje mi commission politique la ñu koy defate ci réew mi ndax ci ñi ko séq démb ba ñuy waxtaan ak juboo amul ci seen biir ci kañ la ko war a def Cheikh Sarr bokk ci majorité bi moom li mu jàpp moo di suñu bëggee organiser ay élection locale yu jaar ñetti yoon ci réew mi lu mu laadi laadi il faut que dafay mat fukki weer ak benn mu njaay siisee njiital ONC 3D fare ci société civile gi ne ñu ci yéenekaay bi xel xalaatu ko mënee suta tuxal élection locale yi ba 2022 Déthié Fall fare ci làngu noon na li ñuy di ñu xamal ci xët mu njëkk enquête dina kay ne ñoom ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection locale yi la ne ñu ñu ci majorité bi seen bëgg-bëgg moo di wote élection locale yi ñu yóbbu ko ba ci weeru février atum 2022 Les Échos ne ko waaye ñi ci opposition beeg ñi ci société civile gi ak ñi ñuy tuddee non nee nañu mukk du ci dal lu ñu reporter reporter yi warut a génn ci at mi ñu nekk mu di 2021 gi l'observateur xëy ñu xamal ne lu ñeen reporté élection locale yi maanaam dàq ko ba jëmi jamono njiitu réew mi Macky Sall jëmmal na ko démb ba ñuy def ndajam conseil des fa la ñu projet de loi bi jëm ci reporté élection locale yi suur soil ñu léegi tey yëfee yegg assemblée nationale ngir député yi war koo càmbar meneen mbir mu jëm assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum Ousmane Sonko neenal maanaam annulé li ñuy toppe Ousmane Sonko recours ba yéen bi nee nañu ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse moom président assemblée nationale moo war a convoqué yi ngir ñu càmbar ko càmbaraale te mbiri député professeur Issa mi démissionné ci parti pur bi ko defoonub député mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi ci yàqule te seen yoon nekku ci am na lenn lu ci l'observateur xëy di leeral ubbil yéen bi station Total yi ñu taaloon ah ñu bari ci ñoom dàq nañu leen ndax fa ñu doon liggéeye taal nañu ko kër ga amatul lum leen liggéeyloo amatul it lum leen faye fay ay wi ci réew mi réew mi quotidien nee nañu njiit réew mi Macky Sall ma nga cee dox bu baax a baax ngelawal yaakaar mi ngi ëpp ci Sénégal li journal bi bëgg a wax ba tax mu bind loole moo di ñi ñu téye woon ci kaso bi ci yëf yi fi xewoon bàyyi nañu leen ca ñoom ñetti activistes mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ñu bokk démb ci la ñu amee liberté provisoire lise ko nañu Abbas Fall ak Sall bëgg na ak jàmm kook dal am ci réew mi Amadou Clédor Sène bokk ci ñi génn kaso démb di ñu wax ci xët mu njëkkal observateur ne moom deful benn appel au wootewul jàmm wootewul it ak dal ñu dali ci Vox Populi fekk fa waxtaan wu waa ji di Amadou Gueye bu ñoo lànk xëy def ak journaliste yu journal bi wax na fa ne muy Karim di Khalifa Ababacar Sall amul kenn ci ñoom ku mën a amee amnistie ba naan yaa ngi yaakaar a doon président de la république Farba politique Sénégal fukki watay huit huit ak juróom-benn ndax wata yooyee Macky Sall dina ci mën a teg loxo ngir dugal ko ci borob 138 milliards yi ko waa Cour répression enrichissement illicite di toppe maître Moussa Sarr ni ñu ci yéenekaay bi lu mën nekk la waaye nag ci kaw watay nekk ci turu Karim Wade ne bu nekkee ci turu Parti démocratique Sénégal bu boobaa état bi du leen mën a sisir ñu sisir Soleil national ba mu dëgër xooli fa programme logement sociaux yu état bu Sénégal bëggal askan wi te dénk ko waa SNHLM fan la toll yéenekaay bi wax nañu ne njiital SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue démb ba muy visité chantier ya ca Njaxiraat la waxee ne cent mille logements sociaux la war a tabax lépp lépp phase bu njëkk bi mi ngi war a toll ci soixante mille logements ñoom waa SNHLM nag li ñu bëgg moo di fii ak atum 2023 ñu tabax lu mu gàtt-gàtt quinze logements ba jébbal ko seeni borom ñu fekk ko ci xët mu njëkk réew mi quotidien moom directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue mu fay wax ne bëgg-bëgg président de la république Macky Sall moo di doomu Sénégal bu nekk am kër gu mu moomal boppam mën caa dëkk ci fukki million wala gën koo bari ci fukki million ak ñaar kenn ki ñu doon wër di Massoukha Mbengue mi yóbbante woon Abdorok Fatou Kiné Ndiaye libération nee nañu Max Mbeng ba mu feeñee feeñalaat na ñeneen ñu ràññee ci benn xale bu jigéen dib étudiant bu nekk fii ci ndakaaru maire beñe la ñu ko tuddee bu dorog bi masaana yegg si ndakaaru moo leen ko doon jaayal moom xale bu jigéen boobee di maire beñe journal bi nañu waa Ocartis ñoo ko rëbb ba jàpp ko ca wakaam la ko jàppee ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom dorog bu tollu ci juróomi téeméeri garam Bienvenue sur Salam Vision.